man nag taxawaay bi ma amee ci forage bi eh, mooy taxawaayu kuy yor garde koppar yi boobu taxawaay laa amee eh, Serigne mbay seen ak eh, sëñ bi ngoom ñoo ma sasoon liggéey bu rey boobu nga xam ne ci sama biir kenn lañu ma fekk ma bañoon ba tëdd ci naaj wa ñu ne waa bu kenn ku nekk reefan ku ne bu arrière joxe ngant kan mooy tax mbir mi dox ñu daaneel ma indi ma ayatul qur'aniya hadis nabawi sharif ma dal di daanu ne janjang dal di d'accordal len ken ku ne ci nit ñi dafa am lu ko fi indi am na ñoon man por yi ma yoron te mbokk yi jox mako ko mu ngi nek 11 millions 450000 mu ngi doon koppar yooyu ñu ngi nii yépp dara manqué wu ci

kenn nit ñi dafa am ñu bari lu leen fi indi dafa am ñooñ dafa am lu leen fi indi ci ngir bokk mu leer lii moo taxoon ñu mbokk yi lii nga xamante ne moom lañu ñu tiim nii dañu ko yor ngir askan wi rek xamne ci refan ci lañu dekk dañu wara bok ci ñi defar ñoo bok ci ñi yaq ndax li tax moy li da na tedd sama kër duma ma gën doxi soxla fanan ngir li kon responsabilité bu rëy lañu massa son mbokk yi xaaliss la leen yoron su ko tenké fi ci kayit suma gënon fi ñu ma jël ko du té samay bok yàlla na bu mu am suma gënon fi mu lak yalla téré may am problème dañ na lakut lak ga bokku ci yoyu yépp kon ñoo ngi leen di jaajëfal di ñaan suñu borom mu fay leen yiw barkelal leen ci teef gi yalla bu mu deñ ndax mbokk yi ñun lama déclarer won déclarer waxat té moy woté wuñu fi ngir xasté woté wuñu fi ngir liñanté dañ fi woté won parce que da ngeen no joxone responsabilité ba nu egg fii ñu ne kon ñetti at yi topp na nañu ci indi kémt laay kattan li ñu mën ci leeraange man li ma mënoon sama akkulaay taala sama digg ak sama borom nee na ñëw dañu ma ciy fay wax nañu dégg waaye bi ñu ma ciy fay xaalis bi bi ñu ko indee dama leen ne déedéet delloo naa ko ci ci social parce que suñu demee ca bés bu ñu koy leeral suñu ne Mat nduur jox nañu ko ci deux cent mille dañu naan li lee taxoon muy rey lamañ loolu moo taxoon ma ne leen soxlawuma ci ñaari dara yàlla yàlla yàgg na may teral ñii ma tuddoon ñu ngi fii ba ñu ma ñaana leen yàlla ñu fekkee njëriñam du ma wóor mukk incha allah mooy mënoon na maa taxu dem Tuubaa mbaa ma taxu dem fere yàlla na taw bi ma indi xaalis bi jëm yii ñoo taxoon ma indi xaalis bi dañu ma noon doo ko indi ma ne leen ah kenn ku ne ci jotaay bi léeg-léeg daa am lu ko fa indi loolu moo tax ma ngab xaalis bii indi ko fi kon mbokk yi jërë ngeen jëf ci koolu teef bi lu ne nag indil nañu nu ko ci xabaar waaye dañu ne nañu muñ yonent bi salaa salaam dinañ waa ker yaasir muñ leen randiwu ba aljana la fas bir muñ leen te lu mën di xew mooy suñu ko wàccee ci loxoy jàmbur mu dem ci ñoom ci ñun la ñëpp lay metti lii moo tax ñu nangoo dem kaso ciblé nañu nu ñun ñeen kaso lañu jëm direct booy ay ba esana gi yóbbu nañ ko ñu ne ci des ay ragal lañu waaye alhamdulillah mbokk yi jërë ngeen jëf yal na yàlla dolli ñu di malam ak suturaam barkeelal sunu dund sama njaboot dama leen ne muñal leen ma demaa song mber bu leen bu ñu ma saaga ci mbedd ngeen addu sama doom yi bu leen ma sa bu leen ma indil xabaar sama jabar yi bu leen ma indil xabaar luñu ma wax rek saa yi nama, pas jaral na parce que ñoma tud ñaanal ma bama exifi kon suma ma te defuma kon wor yalla yalla na dolli di malam ak suturaam ñaanal leen ñu taxaw ko khalis bi nak su len nexé du delu sama kër ndax japp ngeen ken ci refan ku ab fukki million indi ko fi di fi présenté te te naaruma mu delu ndax am abal 4 millions ma indi ko fi te khalis bi du delu ndax japp ngeen ni kooku am ko ci refan ku makoy abal la yàlla na yàlla doolu ñu di mën a wax suturaam yal na yàlla barkeelal suñu dund salaamaaleykum wa moom la ñu fekk facture bii ñu war koo fay ñu yoroon xaalis bi ma leen